Mustafa santal dayob fi gën amul ku lay werante te ci Mustafa Sëriñ bi Sëriñ Mustafa Sëriñ bi nee mi ngi ñëwoon doon la siyaare si ci bis bi ngir jëmmi sëriñ Touba ak jëmmi sëriñ Mouhamadinil mustafa sëriñ bi nee na namoon nañ bis bi lool te yàkkamti ko ndax ngir ñooñu ma tudd waaye bis bi nag namoon nañ ko ngir sab jotaay toog ak yow dañ ko namoon lool ndax Serigne Moustapha sab toogaay ci bis bi dafa neex ci ñun dafa am luñ ciy gis lu bari ak luñ ciy jànge ndax nee na li ñu ci gën a neex mooy na ngay mel ca Nebo ji ko mel ci mbedd mi bu bis bi ñëwee nga xam ne ñëpp lay bëgg a gis noonu rek ngay mel doo ci am genn soppiku sëriñ bi nee na loolu nag dañ koy namm lool daf ñuy neex lool ndax sëriñ Modou Moustapha mi taxawal bis bi kat dafa doy waar Mbàkke ku yéeme la ndax sëriñ Mouhamadul Moustapha kat bi muy taxawal jumaa ji nga xam ne booba Touba daanaka matul téeméeri kër te booba kër kër yépp ay néegi ñax lan ku fi mën a taxawal jumaa ju toll nii am na looy gis yow lu ñëwagul nag ndax Touba li muy rëy rëy jumaa ji mat na ko jumaa Touba lu fi mën a yokk it jumaa ju dana ko mat mat na ko jumaa kon nag ki taxawal loolu te booba Touba matul téeméeri kër kë booba kër yoo xam ne ay néegi ñax rekk la koo doon tabaxal taxawal jumaa ju mel nii gis na lu ñëwagul xam na it lu ñëwagul itam moo tax bis bii sëriñ Modou Mouhamadou Moustapha taxawal balaa ñëw dañ koy namm dañ koy yàkkamti waaye li ma wax léegi rek sa maam yu baax yi day sa baay bu baax bi sëriñ bi nee na fi nekkal doy na tolluwaay waaye waaye sëriñ Moustapha weg gi la nit ñi weg ak sopp giñ la sopp sa jikkoy bopp la kaar kaar yàlla na yàgg sëriñ Moustapha sëriñ bi nee na mi ngi lay bëggee fu mu toll di la di la namm fu ñu toll waaye nag toogaayam ci bis bii sa toogaay ci bis bii sëriñ bi neen da koy namu namm da koy namm lool ndax daal bis bii bu ñëwee. adduna yëpp bëgg laa gis. nga mel nanga mel ca neboo noonu nga solo. noo mel ni nga mel ci mbedd mi. noonu ngay mel ci bis bii. loolu. kuy gis xam na ne loolu du lu ndaw ku ndaw mënu ko sëriñ bi nee na sëñ Moustapha yàlla na nga fi yàgg bu baax fi nga bëgg a yegg nga yegg fi jërëjëf. Cheikh Abdoul Karim ibnu Cheikh Mamadou Fadil noo ngi lay li kàddu sëriñ bi Cheikh Moustapha Mohamed sëriñ bi xolom seet na guy ci yaari mbir. benn bi moom day cosaan te wax wax nga lépp te at mu ne nga wax lu mel noonu mooy diggante ñaar ñu tedd ñooñu nga xam ne dañuy wax ñaar waaye kenn lañ muy diggante Cheikh Mouhamadul Moustapha ak Cheikh Mouhamadul Fadil wax nañ ne Cheikh Mouhamadul Fadil daawul jaar tur sëñ Modou Moustapha saa mag ju baax ja la daa wax saa mag ju baax ja la daa wax saa borom jubale la jubale goo xam ne daf leen a boole woon lépp sax far ndax juróom benn weer lañ jiitlante ci àdduna kii daa feeñ muharram kee feeñi rajab loolu tawfeex la ju kawe sëñ Tuubaa booy leen lépp muy ànd gu rafet goo xam ne la ci aju xajul ci jotaay bi waaye man nangoo naa ci sama waajur bis mu wax ne di yéem sëñ Fallu fekk boobu mu di ma woon bind moo ne sëñ Falloo ko bind maa mu dal sëñ Falloo sëñ Mudu Mustafaa yi seen mbir lu yéeme woon la mu ne am na bis boo xam ne Cheikh Moustapha daa am yitti jum amoon di woo njaboot gi di ci waxtaan ak ñoom maanaam njabootu sëñ Tuubaa gi li ñuy wax doomi sëñ Tuubaa yi maa ci kàddu googu ma wax waaye noonu la ko waxee nee na ban toogee ab diir lu yàgg mu laaj ñu ana sëriñ Fallu agsi naa ñu ne ko déedéet mu laajaat laajaat ñu war a tàmbali waxtaan mu ñu mu yónnee waat ca lii ma wax ma ma ko nettali laaj ne ko na ko wax ne ko moom lay nekk ne ko sëriñ Fallu ne ko ah boobee ca loolee boobee loolee xam nga noonu muy waxee ndeke boobee loolee mooy xasi la leen sëriñ Tuubaa waxoon te sëriñ Fallu bind xasitaam nga bextu bu nu watiya bil iraada lakum li kay oxsa bi xarqil aada min baadi ma shtaraytumuha min ni ahdaytuha lakum bi xayri min ni moo mooy loole ca loolee ndax ba mu lee boole sëñ Fall def ko ne ah man de moom eh, njuréel gi daal jaay naa ko léegi moom doonatuma sa doom doonatoo sa bay léegi taalibi laa ginnaaw boo ko jëndee nag njëg jox naa la ko addiya léegi maa ngi dem toog diglu ndigal sëñ Fall daal ndaw la neel neel saam ak jobaaja ah man bokkuma ci ñoom di bokkuma ci ñoom bokkuma ci daa fàtte loolee ca maanaam jaayante sëñ sëñ Mourou Massa ne ah waaw daal di ko waaye waaye demal ne ko demal ne ko noo ko moom noo bokk lépp mu dem ne ko sëñ sama baax jët nee na yéen a moom bokk lépp mu daal ne ah bisimilah de ku bokk moom doo sooy daal di ñëw kon noonu la meloon ak sëñ Mourou Moussa loola mooy dox ba léegi ca Taïf sëñ Fallou dafay ñëw ànd ak njaboot sëñ Tuubaa gi sëñ Abdou Khadir ca la bokkoon sëñ Abdou Khadir mii waxtu julli jot ñu dem ci jàkka ji mu jàkk ji ci biir kër gi sëñ Mourou Moussa ñëw daal ne ko sëñ Mourou Fadal doxal jiital sëñ Fallu ne ko Mbàkke doxal rek sëñ Mudu Musaa ne ko doxal mu ne ko doxal ñoom ñaar ñu ñu ñu kenn ku nekk ku sa bañ bañ bañ demee sëñ Fallu ne man na maa dox de waaye nag ci ci ci sart ci sart daam lu ma ci sart ci ci jiite gi may jiite sëñ Fallu ne ko sëñ Mudu mu ne ko bisimilah mu ne ko damaa bëgg julli gi nuy bëgg julli nii bu ñu ba sëlmal ko ànd ci julli gi kookee kum jiiteeti ku mës a ànd ci julleem ba faw ñooñee nan am sahaadatu dari sëñ Modou Moussa daal koy poussé na ko bisimilah doxal sëñ Fallou daal di jiite sëñ Abdou Khadir nag daa wax ne sàllaw julli googi de fekke woon naa ko fekke woon naa ko fekk booba daa am ko ko ne bay si njaay gerte daf ko ne Mbàkke booy jiite aju ci tayif la woon tayif jàkka jàng ci ba léegi ci biir kër ga jàkka joojee sëñ Fallou Diagne mag ci biir kër ga sëñ Abdou daa daa daa daa wax bay daa bay si njaay ko ne Mbàkke booy xutba ci jumaa ji gis nga nit ñi nii lay defee jàkk di la xool mu ne ko ah mu ne ko xamul lu tax ñu ne la jàkk nono suñu baxaa di lu mu mu ne ko xanaa ragal ëllëg rek ragal sawara ëllëg rek mu ne ko sàllaw duñ ko gis de sàllaw duñ ko gis de ba mu ko ne jàkk sëñ Mudu Musaa ja ba sëñ Mudu Musaa xol sàllaw ma moom sa jëmm ji ak jëmmam ji moom Cheikh Moustapha cofeel gi dox seen diggante lammiñ mënu ko tudd dañuy ñaan suñu borom mu yàgg rek suñu borom seer na waxtaan nañ ko fépp sopp nga ko sopp cofeel gu kay waaye moom yi teg na la fu kawee te lépp jëmi sëñ Tuubaa la waaw ndax yow ñëpp xam nañ ne da ngaa bëgg sëñ Mudu Musaa loolu moom kenn nattaluwul loola bëgg ngeen sëñ Mudu Musaa bëgg nga sëñ Tuubaa yéen ñaar ñi daa am cër bu leen sëñ Tuubaa del boo xam ne dañuy ñaan rek yàlla na yàgg rek duñ ci dara kon nag jotaay bi yàlla na yàgg ci dara ji sëñ Tuubaa kon nag mbooloo maa ngoog rek kon nag sëñ Mudu Musaa sëñ Fallu mbooloo maa ngi nag ñi agsi ñi agsi gul rek na aju yëpp